waa kër Fatou Gaye jam nañ ko amu dee mu ne xëdd gàddaay ma ko jam mu ne ma waaw. maaleykum yaay booy ñu ngi lay euh, maaleykum salaam maa leen fay. Euh, yow yaay yaayu euh, Cheikhouna. waaw maa bu Jum. est-ce que mën nañ xam exactement lan moo xew. man de li xew. maa ji ci xëy rek bëgg a dem dem marché ñoo ma sa doom dee na laa ci am xëy na suba sangu ba set jàpp julli dem xëy liggéeyi ma tëdd sama néeg ba ay booru 11h ma ne naa jóg dem marché ndax ci weer koor la ñu nekk ba ma jógee ba xoppoo ndox jël sama mbubu du sol sumaare ku ñu wax sumaare gàddaay la dëkk. lu Cheikh di liggéey moom lay liggéey mo daal di ñëw fëgg bunt bi rek daal di téye bunt bi da la langaam yuuxu ma ne ko waa Soumaré yow lan la mene ma ay gaañ ñàq nañu suñu seex ma ne ko du gaaw gaaw fàtte naa ko sax ma ne ko kan mooy seex ngeen ñàq mi ne sa seexu naa de waa kër Fatou Gaye de jam nañ ko amu dee mu ne xëdd gàddaay ma ne ko jam mi boobu laa tàddu sama sago rek génn du yuuxu ñu xëy ma nangu tu ematuma rek ma daal di toog. seex euh, de su doon métallique la woon da doon jàng yàlla def ñu def examen amul mu bàyyi jàng ba mu bàyyee jàng ma woo ko ba mu ñëw ne ko seex yow léegi danga bàyyi nga jàng maanaam ma ne ko léegi ban métier nga bëgg ma dugal la. ndax yaa war a loo bëgg ma dugal la ci ndax nga mun cee am dara munumaa tëb te dugal la ci dara te neexul la magum jëmm nga mi ne ma man soudure métallique rek laa bëgg yóbbu fa armignon laa bëgg ma ne ko so armignon bëgg waaw ma ne ko ba incha allah bu neexee yàlla su ma jógee léegi gàddaay fi laa ma dem waxanteeg patron mu expliqué ko ma lool ma ñëw yóbbu ko jour moo ko yóbbu dañ ko jël mu jubóog ne fa di liggéey ba mu jege ni yàlla def suñu borom ñëpp bëgg ko ba kuy def ay kalaas di defar sa néeg sax moom ngay woo guddi sax day dem di liggéey su ma man ko seex mu indi ay bagage sama ko seex heure bi fu mu damaa maa demoon woo liggéey lépp rek soo xam yaay su bii de laa la bëgg a mu ngi ci kaw dëgg maa ngi ci ne ko ah mi ma waaw ma ne ko seex lu jot ak yomb yàlla baax na mi ne ma incha de tabaski bii di ñëw bu neexee yàlla li ma mëmët naa la wutal kër am na terrain yu ñuy joxe bëgg naa fa dem di wersi ji ma ne ko seex bala ngaa dem ay terrain sax sinjë croisement sinjë nga xam ne am naa fa pàkk tabax naa fa benn néeg mi ne ma waa kay on si foofu wax nga dëgg sinjë sax laa bëgg ñu dem yegg fa bu dee ñetti néeg fekk jour bu mu njëkkee jaay fi àggam bi mu cent mille mu jox ma ne ma yóbbu ko sinjë soo ko fa yóbboo ñu teg ko fa en attendant pour suma bu mu jaayee naagam bi itam mu fekk ma fii ci nit bi dama yaay mi ne mi ne ma xam nga ma bëgg ma mi ne ma damaa bëgg dem Sinja xam Sinja mooy suñu dëkk croisement Sinja ma ne ko looy wuti Sinja mi ne xotti naa sama yére ba jënd samay dàll damay ñawlu dem Sinja ndax damaa bëgg bu neexee yàlla lu fa nekk ñu mottali ko ma mottali ko fa ba doon ñetti néeg sa yaay dem ndax tuxu tuxu bi dafa metti ci yow ma loolu de bu ko defee seex lu baax la doom ji ma yërëm damaa toog ba si yàgg barke dem jënd ma saako ceeb ne ma ko bëcc sama nit bi yëkkati ñaari juni ne ma dama dugg caaroy moo jour alxames ba ko jour umte koor laa dem caaroy nduggi heure bi koron laay soog a ñëw mu ñëw mère mu wàcc ma mère ñëw nga ma ne ko waa mi ne ma ndugg nga ma ne ko waa mi ne ma waa kay léegi rek xam la des ma mi ne ma incha allah bu neexee yàlla fan li ma yàlla may dama lay may nga dem jënd pompe dara soble nga ràcc ko xam naa mère yow da ngaa bëri tem nga commencé jóg fii fu ne nga dugg fu ne nga dugg fa mère ay yërëmal sa bopp koor gi dafa métti ak naaj bi tàng bi mais est-ce que mën nañ xam ndax moom dafa daan jëli charette waaw moom bu mu ñëwee jënd saret bu mu jaay nagam bi xale yi ko rey tey mu dem jënd saret ci biir koor lépp ci koor gi la lépp ci biir koor mu jëndee sara léegi matu sa ñaar fukki matu fukki fan léegi mu ma ko ndekete mu ne xar lay jënd ma waxanteeg ma njëgu xar ndekete mu demee xale yi ko rey nii fex ne ba gondi ko ne ko léegi dañoo bëgg su ko defee boo amee sa sara muudloo nga daa xam nga moom loolu dañ koy wax waaye seexu naa la tudd mu dem jënd ñu ne lépp nag pour neen liggéey ñoo ñoo ñu koy liggéeyal bu xëyee dem liggéey métier fan yooyu rek mu nekk gàddaay xom lu mu jàppante xale yi nangu seret ba bu mu nangoo seret ba rek am ku ko doon seex kaay jël ma kaay sëqal ma sama kii sëqal ma sama kër mu nekk fi liggéey mu nekk fi di kii moom sëq ak ñoom du sëq suus ba mu ñëwee mu dégg na yëg naa man ko seex da ngaa jël seret bi damay yaay jaay damay jaay seret bi ndax man bëgguma lu la naqari man lu daal yaay bëgguma ko yàlla xam na ko ak koor gi ma koor mu jaay seret bi bu mu ko jaayee jënd moto bële moto bi nee wéer mu jënd moto bi ne moto bi da koo bëgg a joxe ñu ko koy awalal su ko defee moom bu xëyee dem wuti ji lu am ci kii bi métier mu nekkat dem na ci hectare ba betteer ba ba wax fa ay kii ba betteer bi ne ko dama lay jël loon nag jàmm soo ñëwee dañ lay jël nga ñu defal suudar bu taal mu ne ko waa am mën naa ko mu ñëw ne ma yaay jox ma sama dentité suba ak jàmm damay dem betteer ba maa ne ko mën a nii xale bu ma yéene xale bu amul xamul histoire gàddaay gi muy yaroo ba ni mu toll nii wuleet tey la ma mës a def lu mën a xare ak waa gàddaay googu. lan ngeen jàpp ne moom mooy histoire bi lan la ñuy jotee exactement. man moom lu ñu jote foofu man fekkiwu ma man moom fekkiwu ma waaye ab fekkiwu ma nu jote moom daal ñi mu toogandool nee na toog nañu ba bu mu nangoo seet toog nañu fa lu mot waxtaan ak moom ñu koy kii de waxtaan ak moom waxtaan bu mot ba jot ñoom ñu ñett. ñu fexe ba tappaas ko ci biir tappaas bi lañ ko tapp ñu tappaas ko moom rek xamu ci dara danga nangu na pour rek saret bi lii na ñu tappaas ko mu jàppanteeg ci kenn ñu xeex mu dóor kooku ñu àtte leen mu ñibbisi bu mu ñibbisee tam man waxuma na dama doon xeex ak ñoom diw dafa ñëw rek sangu daal di dem gàddaay ndekete bu mu demee rek bu mu demee rek ba commencé ba xëy nekk tam xale yi ci waxe nit ñi nee nañ jënd na jënd seen paaka roof ko moom mu dem moom yëgul lu xew mu liggéey bay wàcc ne xale ne ñu ma doon liggéeyal maa ngi dem sama kër sangu ji ndax léegi deux seen naaj bi dafa tàng damay xëppoo ci tuuti ndox fu mu tourné rek ñu tase moom muy jàppanteeg ak ji rakk ji dem dëkk jënd na paaka ba roof ko fii nee nañu fu mu jàppantee mag ji rek mu jël paaka bi dëbb ko mu daanu mag ak rakk dañoo ko def noonu ñoo ko def bokk ndey ak baay ñoo ko liggéey boobu liggéey ñu daw ma yi ci topp leen police yi topp dinaa moom xale yu góor yi dégg naa ne foofu fees dale ay nit ñu taal seen borom sareet yi taal seen oto seen sareet gendarme yi euh, police yi taal seen seeni lii seeni kii topp leen ba karkara leen indi leen ban leen karkara indi leen dugal leen ci oto bi indi leen police police bi police kii bi leen leen indi asek naa bi yëmbal ñu yend ak ñoom ñaari fan am ku ñu tuddaat xale yi tuddaat keneen nekkat ñoom ñett ñoo ñoo ko complot ñu dem jële ji ñu dem kooku indi leen ñoo leen ñoom ñett la ñu jàpp jàllale nañ leen tey. léegi euh, bi si ba man mën ma ci wax dara parce que Cheikh dafa am kër ndey am kër baay te waa kër baayam ñoo ko yóbbu denc ci ko ñëwaguñu ak waa kër néegu ndeyam xam nga doom boo ko juree wàllu kër ndey nga war kër baay day am te man mënus ku ma ci wax dara ndax ñu ko kii ka xam ne moo jël moo ko yóbbu kii mooy yaayam kii mooy àjjunu seex kii moog yaayu seex moo papa yu seex ñoo bokk ndey ak baay doom rek colonel la colonel la abu colonel abu saw moo commandant moo jël lépp risque yëpp jël ko léegi rek mu ci mën a wax nee na moom day dem ba yóbbu kiyam ba ñëw yóbbu xale bi ba denc ba pare moom lu ci mën a nekk moom moom dina ko dox mu sedd guy waaw. Ah, ñu gis insécurité am na ci côté yi yan ban message ngay euh, ah lu xeer bi kay neexul maire bi. ndax maire waxul kenn rey gouvernement waxul kenn rey xale ñu am seen néegu bopp ak seen fit ak seen sadik ak seen ñàkk kilifa ak seen dëgër bopp di def li ñuy def ama noonu laa ko gisee ndax ni dama rey nit kenn du ko wax waaw loolu gisee. Hmm. salaamaaleykum yaay booy. maaleykum que mën nañu xam yow yaay kan ci euh, Cheikhouna. Cheikhouna. Seexuna Jum de may bàjjanam ma papa ma bokk ndey baay moo topp jigéen topp ra ci woon mooy sama ñaareel bi toppoo waaye moom Seexuna moom diirug ba mu juddoo ak léegi démb ci suba lan def lu naqari ndaxte nag yàlla dogal na xele lañu waaye seen baay da leen a yar seen yaay yar leen ñu jël seen ngoruk baay jël seen muñug yaay teg ñaq tedd rek lañu xam banaale wunu traité wunu sunu xëyee ñu ngi ci seen métier li muy doon doon xele mook ay magam da doo teel a yërëm seen yaay foofu ñu ko reye daanaka su may ba mani foofu la yaroo dafa judd nekk lii rek yaa ngi toxu si foofu. gàddaay te xam naa ne ñii ko rey ñàkkuñu koo xam ñàkkuñu koo xam ñàkkuñu koo xam waaye ku xam seexu naa xam ko ci nangoo dem ci métier xam ko ci yar xam ko ci daane dooleem dikk lu mu am dikk daanu si ci yaayam dégg nga fii nag li leen fi indi mooy hmm? tubaarkàlla bu yàlla dogalee amagoo dëkkuwaay dangay ngay luye yaayam su xamante ne su jógee gàddaay luye si fii doomam bu xëyee di liggéey ñu kar ko rey ko bii rey bu ñaaw kon jar na daw ba fu ko jàppe ji waaye jaboot moom du xalaat lu bon du xalaat lu ñaaw lu rafet rek lay xalaat doomam it mébét bu rafet la amoon ambition bu rafet la amoon yërëm teel a yërëm yaayam def jom ci boppam bu xëyee dem daani dooleem mook ay magam seen rakk jigéen nañ fi koñ bi l'ensemble boo doon laajte duñ ñu ni doomu Gueye Siry dañuy fréquenté ci mbedd mi xamuñu loolu ci yéen biir kër gi rek seen yaay lu mu am daw andi moom xel bi lu mu daw for dikk andil yaayam ñoom nag ginnaaw yàlla dogal na ñoom xëj na dañoo am doole ah, ba jàpp xele ak ndawam ak yërëm ga mu yërëm way juram ñu xëy suba rek ci kaw alalam ñu boom ko dégg miti nii ah nu bàyyee ko borom mbaar mi rek nu bàyyee ko borom mbaar mi ndax noonu bu dee noonu rek ak yaayam ji mënunoo yéeg mënunoo wàcc mënunoo dikk danoo am ay kilifa danoo am ay kilifa xamuñu it li xew ci jamono xamuñu it li daw ci jamono fii mu ne parce que ndeyam ji gëstu loola bu xëyee mu ngay util mu dellu ci njabootam man mii di seen magi papa gëstuwuma loolu xawma ko bu ma xëyee maa nga toog ci sama kër gee di wéttali sama njaboot kon xam nga nun xamuñu luy luy daw ci réew mi jàmm ak salaam rek la ñu xam ak yor say doom buuf ci di yaakaar di tàllal yàlla loxo waaye nag xëy mi nu xëy démb moom gonte ko yal na ko fi yàlla yemale metti na torop leneen nag xamuñu ko ci leneen mënuñu ko cee wax moom Seexuna moom dafa am ay mag dafa am ay kilifa tànkum ndeyam ak tànku baayam ñoo dem suri ko ci wetu papaam Thiès Thiès lañ ko denc waaye coono biñ ñu teg démb ci suba ak léegi yàlla lañ ko seddal borom mbaar mi metti na lool. waaw seexu naa li ma xam ci moom bari na c'est parce que lu mu gàtt gàtt jàngal naa ko métier menuisier aluminium bi yaayam di wax mais dama mën a wax ci moom que nit ko amul benn problème foo ko gis bëñam ngay njëkk a gis seexu naa ku ko tooñ ku mu xeexal yaa ko tooñ ndax koo xamante ni xamul lu ko métti moom bu amee benn deux mille cinq cent daw na dem këram lijjanti leneen nekkul ci nit koo xamante ni bandi la. wala dañ koy jàpp ne bi dafa bokk ci booy vagabond yi Seexuna dafa dugg ci saret mais saret du liggéeyam bëgg a teral waajuram moo ko ci dugal mais ci ñi ko xamante ne ñoo ko def jëf ju ñaaw ji boo yooyu noonu c'était des clochards bëgguñu lu. est-ce est que xam nañ leen ci euh, koñ bien sûr c'est parce que ñoom fi ñuy fréquenté tey boo fa demee laajte booy rek da ngay xam ne ñii gis nga leen da xam ne ñii dèjà ñoom ay bandi lañ bëgg def seen bopp nit dafa am style booy yor ñu teg la nit mais boo yoree style charretier di def am na ñuy dawal charrette di joxe dépense mais booy seen charrette ñoom 15 lañ koy jëndee. ñoom nan lañ tudd ay xale lañ ay même ay xale yu ndaw lañ ci boo déggee ki ko rey xale bu ndaw la c'est parce que même pas jamono passé rek man naroon nañ ci jàppanteeg yeneen booy yi nga xamante ne ñoom nan lay àndal ci ah, problème de 15 yu ñaax fayda yooyu. genre boo yooyu noonu état moo ci war a jóg ñun moom la ñuy ñaan mooy ñi nga xamante ne dañuy yor saret sans responsable amuñu jabar amuñu doom ñu xool nan lañ leen di jëlee ci saret bi parce que lii dafa ñaaw fekk ah lieu boobu nag man mënu ma ci wax lu sori c'est parce que Seexuna jour biñ ko reyee comme suba tey la gaañ ci guddi gi dem ci guddi man nee naa ko suba nga ñëw jëlal ma samay matériel aluminium nga indil ma ko suñu kër bam naan ma waaw moto bii mu jënd ci biir këram daf ma romb ne ma kaay ma supporter la ma ne ko man du ma yéeg sa moto ndax mënu koo dawal mu woo kii ne ko am naa moto léegi damay cag-cag ndax moom booy bi ñoo bokkandoo ak ñett la ñoo bokkandoo même génération bu ñu duggandoo métier man ma nekkoon seen patron ak sama beneen grand frère. naa dem ba mën liggéeyam bëgg a teral yaayam aluminium bi dëgg la da ngay xëy tey nga am suba doo am te boo amul chantier yu bari doo mën a ibbi atelier bëgg a yaayam moo tax mu jaay machine aluminium dem jënd ci. saret ngir am lu mu gàtt gàtt xëy suba joxe dépasse Cheikhouna day nit koo xamante ni amul benn problème ak doomu aadama amul benn problème ak doomu aadama man mii di wax ak moom damay toog Cheikhouna mu yor cent franc ma nangu ko ci loxoom te du ci teg baat ree lay def dem yoonam suba mu ñëw sama kër ñaan ma aluminium ma may ko démb biñ ko rayee man dama romb choc laa ko tegoon a ah, juste ma romb ñu ne ma sa booy bi la ñu rey nii ki ko rey. lu lu métti xol mënuñu wax dafa neex ñu wax lu rafet la lu métti xol c'est parce que imaginer koo xamante ni tey bu ko buñ ko waxoon yow suba boo xëyee dem dawali saret dañ lay jam nga dee du xëy man loolu leer na ma ne booy bi amul problème bi nga xamante ni que ni kaa ñu xuloo wala kaa ñu xeex tey yow boo ko romboon nga saaga ko du la faale day dem amul problème boobu noonu. waaw xam nga liy yële saret ci tey ngay dawal saret may dawal saret foog ñu xamante te yéen caméraman yi xam nga am na ñoo ci xamanteel seen biir mais àndoo leen mën ngeen xamante mais mën ngeen bañ a bokk jiko seexu naa noonu la demee woon ak ñooñu mi ngi doon ànd ak ñoom ak lieu de saret bi mais bokkul ak ñoom jiko ndax man li may wax dama koo xam lu mu gàtt gàtt def nañ benn deux ans wala trois ans ci même atelier boo xamante ne suñu grand frère moo leen booy bi duma bàyyi ma fenn seede la affaire bi daf ñu métti torop ñi ngi ñaan nag lépp lu ci maanaam loi bi war a tëral na ko ci def ndax lii métti nañu trop kii ñu boobu moom la xamul dara man loolu mën naa koo koy seede. ainsi eh, maanaam loolu li ma ciy wax mooy que ni yaa de gàddaay fii nii am na ñi nga xamante ne ay responsable charretier lañu ñoom seen saret ci lañ tabax kër ci la ñuy joxe dépasse mais am na ci ñoo xamante ni maanaam clochard moo leen ko yóbbee te ñooñu nag dañ leen war a seppi ci biir charretier yi maanaam bu jaree dóor. ñu dóor leen bu jaree saaga ñu saaga leen bu jaree punir ñu punir leen ndax ñooñu maanaam loolu lu seen rôle xale bu demagul amagul dix ans warul dawal saret amul droit lu ko métti ba muy dawal saret ndax bawal bawal suñu mbokk bawal bawal dañuy jógee dëkk ba indi saret di daan doole doo ci dégg kenn ku xeex wala ku xuloo ak moroomam mais kon ñun gàddaay fii nii booy yi bu suuf gi ak weccit bu sew biñ cee am ndax ñoom ñëpp ñu bëgg a focaliser seen bopp ci saret déggee daal charretiers yi ñooy indi insécurité fii. insécu merci merci beaucoup. y a des yi nga xamante ne ñoom ñoo fi indi insécurité c'est parce que am na ci ñoo xamante ay responsable lañ dañoo yor seen kër yor seen i jabar yor seeni doom boo fa toogee di def naka su dul noonu dañ la fay jëlee te duñu ànd ak booy boo xamante ni bëggul lu baax man xam naa ci ay nit ñoo xamante ni ñii ay responsable charretiers lañ. tey bu ma doon jëli samay bagage ñooñu laay woo ne leen kaay jëlal ma samay bagage c'est parce que man du ma jox du ma rom n'importe rek man la defal ma li wala defal ma li lii déedéet am naa ci ay numéro charretier yoo xamante ni suma ma dara ñoom laay woo kaay defal ma li kaay defal ma li te noonu ma leen ko waxee noonu lañ ma koy defalalee état bi la ñuy ñaan maanaam charretier yi génération booyu ndaw yi sept euh, sept ans dix ans quinze ans bi ñu jëm leen a dugal ci leneen ñu jéem a def seen xel yi ñu génnee ci saret ndax saret tamit day yàq nit man mii di wax ak yéen bu nekkul woon sama yaay kon tey heure bi dawalkat saret laay doon mais daf ma ci ray dóor ma ci ba muy bëgg a dee ngir ma bàyyi saret tey xam naa lan mooy valeur bàyyi dawal saret ndax kenn du la nawloo kenn du la respecté loolu daal bu ñu sañoon état nañ ci jàppale bu baax a baax a baax fii ci gàddaay. Euh, man Seexuna maam moom ñoo dem jàngandoo métier parce que yaa am sax bu mu koy indi si atelier bi jour man la fekkoon ay côté 2017 2016 yooyu noonu. Cheikh maam daal yaam dawal sareet la ko dem bañal moo tax mu ñu indi ko pour muy jàngi métier pour mu bañ di fréquentoo dawal sareet parce que commencé woon na njëkkoon na di dawal sareet boobu yàgg ay côté 2016 yooyu noonu moom daal Ibrahima Diallo moo nekkoon suñu patron jour boobu noonu bi muy wax moom atelier bi man la fa fekkoon yaa ngi dégg après ñi nekk noonu di jàngandoo métier ñu nekk noonu jàngandoo métier jàngandoo métier bi ñuy ñëpp suñu patron leen woon comprends nga mais Cheikhouna amul benn problème du sàcc. moom du sàcc du toox du naan du def dara du jël alalu jàmbur liggéey la xam moo ko jara mu dugg si li moo tax mu jënd sareet. Ah, yow xaritam nga est la wax comme quoi que am na problème ak euh, ñi ko def maam ñii ñu ko ñu ko def nii tey du xeex bu jotewuñ dara maam daal. du amuñ problème du problème xeexu guddi la xeexu guddi la woon. amul benn amul man seetlu naa jour avant muy xeex boobu woo na ma sugg woo na ma. ma nekk Dakar mu ne ma Babacar nuyu ma sax ne ma yor naa moto léegi damay cag-cag boo gisee client rek ngir yàlla woo ma nga jox ma téléphone. moom ñaari yoon xeex wala bi dem su guddi la woon. Mm-hmm. su guddi la woon. après mu xëyaat. dem di tubb suuf. comprendre bu mu xëyaat di tubb suuf ay 10 heures nag la jotelaat booy yi muy xeex ak ma rakk ji bettu ko jam ko. 10 su suba waaw. Mm-hmm. ci intervalle boobu waxul lan mooy seen problème. non amuñu problème amuñu problème moom mag ji la dem xeex rakk booy bi moo ko bett jam ko mais amuñu problème nekkul booy daf ko war a jox dara war ñu jox ko dara moom du xeex ngir alal moom du xeex ngir alal moom boo ko boo boo bu yoree daal boo ko gën a soxla mu bàyyi lox man xam naa ko nekk na ne ati ati ati ati waa cadre yooyu la cadre yooyu la parce que moo wax dëgg fi ne amul benn problème. moom bu ñu toog di waxtaan man seexu naa man su ma yaree nag ginnaaw yàlla moom la parce que moom mooy moom may amour bi quoi parce que ñoo dem defandoo lépp man bu ma demee ba jënd nag moom la parce que moom dugg na si woo ma ne ma Babacar jëndal jëndal jëndal nag moo ëpp xaalis moo gën bu ñu xëyee dam xool leneen lu ñu def comprendre man noo laa xam naa affaire de lay doon nag parce que moom yàlla ibbi na ko butu wërsëgam bu jënd sareetam comprendre nga ñu tegaat suutu mu yoraan mbotam loolu sa morom bu koy amu ko tey bu yàggee sax boo leen xeexee mun na am dalay def lu metti en tant que jeune ban message ngay lancer gouvernement bi ah fii moom li fi am wax dëgg dafay dafa métti trop trop trop parce que man amoon naa sama benn xarit Siré ñoo dem ñaandoonoo jàngi métier. yàlla xam na ni kooku si carte lañ ko reyee même pas gaan bu ko rey ma tëdd sax deux ans mu génn na tey jour tabaski la ko rey nii mu rey ko. parce que booy. dafi am di fi am di fi amaat. parce que booy dangay ngay la ñu dóor la benn deux ans nga génn boo génnee fuy loolu moo fi nekk. lan ban ban message ngay lancer mu jàppale ñu si. parce que booy am na dañuy yàq dañuy yàq liggéey sareet parce que am na ñoo xam ne moom lañ def métier mais booy dañ siy jël quinze da ngay dox sax ñu naan la indi lu nga yor yow doo wóolu kenn da ngay dëkk bis booy dox yow sax doo doo xam looy dox. mais loolu est-ce que population bi amuñ jéem a def benn que bu ngeen seetaanee tamit dafay gën a yokk moom booy dañuy gën a am sañ-sañ waaw parce que gars yi leen jàpp dem teg leen yóbbu leen tëj leen forbe tëj leen benn un mois six mois ñu génn toll nu la neex bu ñu génnee dañuy fuy dañuy capable mais boo booyoo dóor ko bi ñuy waajee wala ku rey ñu rey la bu yàggee du leen bàyyi faat doomu jàmbur amul benn problème mu kii nii barki alxuraanu kam diine ma amul lu mu ko jaralu woon man xam naa si loon dan nam ànd liggéey laa mu ñu wàcc ba vingt heures mu jëm dem teel tuural teel lax dar yi dem di jàng ji barki alxuraanu kam dañ si dem werante ay faratay njàpp lépp maam moom billaa wallaahi taala doon groupe nii dañ si dem taxaw diinam amul lu mu ko jaralul man fu ma ko woon ne ko seexu naa kaay jàppale ma ah day ñëw billaa photo mi gaay yi si man lañ ko jëlee photo yi gars man mi man maa ko photo ñi liggéey ba pare ma ne kaam la ñu taxu ñu photo wu billaa wallaa mais dem bu ma waxee sa sa copé bi fee teeleen ka jam non daf lu jóge si man du ñëwaat sama julli deux heures bi kenn xam nu mel billaahi parce que sama gaan la woon wóor na yàlla sama xarit la amul benn problème lu saa wax rek moom lu lu mu yor boo ko gënee bëgg mu bàyyal la ko barke alxuraan man dama ne ba àllee ñi ne moom dafa ma ragal amul benn pro histoire yow naa du xeex. ku mu sekkal nga ni kii tapet a ñeme mooy. ku dul ku dul xuloo waaw du xeex waaw ok. amul benn problème moom liggéey mooy loolu. pour nga xeex ak moom day yomb quoi. sama moroom la. à peu ay 22 ans yooyu daal. sama moroom la. billaahi affaire moom métti na trop trop trop trop trop. waaw waaw mu jàpp ñu fii. jàppale ñu secteur la gàllaay. waaw waaw. waaw mu jàpp si trop waaw parce que métti na trop parce que booy bu ndaw. seen kër lu ne la si dem def loolu man leer na ma damay woo sanama Babacar liaas bi nii prince maa si jàpp néeg bi maa koy fay du ma mën a toog bu xëyee ar ñam doxul soma day dem liggéey Ménébour effectivement pour weer bi dee xam ne weeram moroom dafa jege xam nga ay mooloo xam naa mooloo soo mel sa yërë baax sax bu bugg ko sol pour liggéey pour jox yaay ji rek moom bu ma xëy naa sew naa del jënd lii di sol nii mun a ayo toogal foofu wóor na yàlla pour bëgg weer bi rek mu mun a am dugal si yaayam dara fexe nu mu jëndee ay saak ceeb jox yaayam billaa wallaa wa taala borom baax la ma amul benn problème. man maa ko may aluminium ñëw sama kër fekk ma may nelaw mu jël aluminium mu ñëw fekk ma may mu fëgg ma dafa lii laa rive laa soxla woon ma ne ko li nekk ci kaw dama koy liggéeyee dafa ma yeb mu ne ma waa baax na maa ngi sama néeg de mu yéeg ci kaw terrasse bi jël aluminium bi di wàcc aluminium bi di kërën kërën maa ngi koy yëndu ma ne ko seexu naa bul yóbbu loolu dama koy liggéeyee. lijjantiwu ma sax dani ma boo ko soxlaa après man dinaa la ko lijjanti jël aluminium boobu yóbbu amul problème maanaam dimanche sax bi nit ñi di noppalu moom da nga koy gis mu gàddu perceuse am ak ay bagage am dem di liggéey tey mi ngi nii perte nañ ko ci à cause lan jam ray ko mu dee tamit ça c'est honte yen yéen ñi nga xamante ni yéenay dugg ci yenn sidi yi dee la message ci lii nii état jàpp ci sécurité bi tamit ndax tamit boo yàggee kenn dootul génnati sa kër de kenn dootul génn sa kër kenn dootul lijjanteeti dara ndax kuy jàppale yaayam tey ñu ray ko xamoo ba xam yaayam moom la yaakaaroon xamoo doo xam tey lan la fondement woon tey moo ngi nii adunaam avenir am yem na fi ay famem ñooy sonn kee ñu tëj ci kaso bi léegi mu génn bu génnaatee day nekk ci boppam état moo ci war a jàpp ku rey nit ñu xool nuñ la def ki sàcc ñu xool nuñ ko def l'islam day bëgg a ñëw taxaw ku rey nit ñu rey la ku sàcc ñu dagg sa loxo ndax tollu nañ foofu noonu bu njëkk ba dañ ko doon wax mais moment bii nii dañ toll ci ku rey nit ñu rey la ku sàcc ñu dagg sa loxo ku def na ko su dul noonu ñi nga jamee nit mu dugg 7 centimètres ñu jamee la ko mu dugg 7 centimètres laa man yaakaar naa buñ ko defee tey man suma ma jamee Babacar ñu jam suba dinaa xalaat jam biñ ma war a jamaat su ma balu may jam keneen kon loolu war nañ ci bàyyi xel bu baax jërëjëf